bokki jullit yi gannaaw loolu noo ngi dénk sunu bopp te di leen dénk yéen tamit nu boole sunu bopp bennoo doon wenn say bañ a teqali ko bañ a xajal seytaane sunu diggante nu bëggante soppante wóolante te yàlla rekk tax kenn ku ne jàppe moroomam ne boppam nu bañ a xeebante kenn bañ a jàpp ne moo gën kenn li nañu ne sunu boroom subhaanahu wa taala dafa mës a yónni sayidna jibril alayhi salaam ne ko demal adduna nga xool fa loo xam ne yaa ko gën nga indil ma ko bi naa Jibril ñëwee wër ba sonn gisul lu ab xaj bu medd ba tas mu dem ba di ko jël dal koy bàyyi dellu ca boromam sunu borom ne ko loo indi mu ne ko gisuma fa loo xam ne maa ko gën sunu borom ne ko demal xooliwaat naa Jibril alayhi salaam defaat noona dal di dellu ca boromam yóbbaalewul dara sunu borom ne ko loo fa gis loo indi Seydina Jibril ne ko wër naa ba sonn waaye xaj bu métti laa doon waaj a indi ma xalaat ne gënuma ko ma bàyyi ko sunu borom ne ko boo jàppoon ne yaa ko gën ba indi ko fii fi man dinaa far sa tur ci diwaani malayka yi kon nanu fonkante wegante yéenante jàmm tey bañ a añaanante lu waaye am yalla la soob mu may ko ko nanu ko ko yéene dogalub yàlla nag la la cay noppal mu neex la ta nga ànd ca mooy mu neex la ta nga ànd ca nañuy muñalante sikk yi ndax ku sikkitee ànd ak nit doo ànd ak kenn ndax koo xool ci moom sikk gis ko te bala nga wax sikkus jàmbur na nga xalaat ne am nga sikk te nit ñi am nañu làmmiñ Sëriñ Tuubaa nee na boo xoolee sa bopp ba xam ne am nga sikk war na laa doy sëkk ci fexe noo ko dindee ci yow ba dootal sikkus jàmbur nee na boo xoolee sa bopp tamit te gisoo ci benn sikk te loolu di lu jafe fexe ba ñàkk sa bopp ba doo am sikk war na laa doy ab liggéey ba dootal sikkus jàmbur nit ki kon wërta am jotug di xool ay ayibi jàmbur boo jëlee sa waxtu wépp nag def ko ci lijjanti li war sa moroom li la war yow ci sa bopp dina la raw kenn ku ne yàlla teg na ciw loosam ay warteef yum xamut num koy matale kon na kenn ku ne maandu te nekk ca la ko war nit ñi nag nanuy dox jàmm sunu diggante te di ko wax di moytu rambaaj ak tasug bokk bu nu ñàkk bokk ngir te benno bu nu ñàkk bokk tarixa tee benno bunu ñàkk a bokk sëriñ te benn bunu ñàkk a bokk xalaat te benn bunu nu noonoo mukk ngir ñàkk a bokk yooyu yépp noo bokk yàlla minu gëm noo bokk gëm sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam noo bokk diine lislaam ji kon bokk yi nanuy xool li nu bokk tey bañ a xool li nu wuute te nu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ab noon te benn rek la muy noonub lislaam bi te dara gënalu ko lu dul nu xàjjalikoo di xiiroo ko ngaayoo ci sunu biir kon nanu góorgóorlu ci fexe ba bu mu am ak bëggam ci noonu bokk yi aduna gàtt na lool rawatina dund doomu adama bi rawati fi fi mi mane ak fi mi télé kon waruñoo tal bañante ak noono waruñoo tal xiro ak xàjjali ko sax ñi ngi bolo ngir dole seen bop te nun julit ñoo ci gëna yey ndax sunu borom moo ko sant wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ta kenn ku ne ka moroomam xool ba mu doy ko def ko muy jëwriñam royukaayam ak sëriñam ci toolub lislaam bi mu wegle ko ko fonkle ko ko te bañ koo doyadal ndax koo xeebub sëriñam mu xeeb la xeebal la sa bos te kon du ngeen mën a ànd. vous noo ngi dénk mag ñi ñu yërëm ndaw ñi te di leen teete koo ci gis jàppe ko ne sa doom di ko laabiire di ko wanu yoon noo ngi dénk ndaw ñi ñu weg mag ñi te déggal leen rawatina seen ñaari